dafa am rek ay leeral yu nu bëgg indi ci xabaar yu nga xam ni jib na ci presse bi ci àjjuma ji jàll mu tudd marché public bu nga xam ni dañu ko jàllale fii ci commune Touba Mosquée mu yegg ci 465 millions mu mel ni nañu ko dégge ñun ci presse bi dëppoowul ak li nga xam ni noonu la deme li am ba jeex mooy exécution budget wu 2019 commune Touba ci boppam moom moo amoon yéenewu tabax ñaari poste de santé ci gox yu nga xam ni yitte nañu ko ci Touba amaat tamit yéenewu sàkkul commune tuuba moske ak population yi ay corbillard wande sàkkul tamit commune Touba moske ak askan wi ay électropompe ngir waajal màggal yi nga xam ni dafa gëm ci ndox mi rawatina nawet yi nga xam ni moom lañuy ñuy ba mbënd mi sonal lool dëkk bi mu amaat beneen yéene bu nga xam ni bëggoon na ko ngir insécurité bi nekk ci dëkk bi te loolu ñu nemmiku ko ci transport bi dem beeg dikk bi ci dëkk bi maanaam mu indi ay jafe-jafe lool ndax ku xam na ni dëkk bi transportu charrette dafay am transportu taxi am na fi transport yi car am na fi transport yi camion yu rëy ku ne xam na Touba ni mu bindoo ak jaxasoo geeg tànki nit ñi maanaam loolee doon na jafe-jafe bu nga xam ni bés bu ne accident yi moom kenn xamul ni mu demee ci dëkk bi te pour Euh, taxawu askan wi taxawu gàttandu sëriñ bi ca loola mu bëggoon a jagleel dëkk bi ay feu rouge ni ñu ko gisee ci dëkk yu baree bari ba xëy na bu foofu alkaati mënta taxaw ab euh, euh, kuy réguler circulation bi taxawu fi feu rouge yooyee yaakaar naa ni bu doxee dana mën a wàññi lu baree baree bari ci jafe-jafe yooyu wante ñun ci gi yàkkamti ak urgence rek ci njuumte lu nga xam ni dal nañu ñun ci suñu liggéey ca cellule de passation des marchés parce que encore une fois responsabilité bi du maire du le conseil municipal du commune bi du askan wi man le coordonnateur de la cellule de passation de marchés ak équipe bi ma àndaloon ci ak yàkkamti ñun ñoo fàtte ñun ñoo fàtte dellu siwaat ca PPM ba maanaam dugal ca maanaam marché wu feu yooyu yónnee ko DCMP mu validé ñu ko waane booba ci ak yàkkamti rek defar nañ dossier pare nañu ko daal di daal di daal di kile pour que avant màggal bu ñu mënee procédure bi lu mu yàgg-yàgg danañ ko mën a kile ba nit ñi feu rouge yooyu ñu mën koo installé loolu dong moom moo dal kon pour dellu si wax ni loolu ñuy wax ci xabaar ci presse bi dëppoowul ak vraiment yéenewu commune bi dëppoowul ak doxalin bi dëppoowul ak ni mbir mi amee ndax la ca ëpp solo mooy ARMP mi nga xam ni mooy organe bi nga xam ne luy conflit ci wàllu marché moom moo koy atte noonu lay def gouvernement bi président de la république ak ministre am noonu lay def collectivité locale yi lépp lu yore diñu publique rek maanaam bu ca procédure marché bu ca amee dara lu nga xam ne lënt na ko ca moom da koy daal di atte te na ma koy attee mooy vise de procédure yooyu moom moom loo lool lay attaqué du jëfiin wa wante vice de procédure yi maanaam bu ca dara manqué day daal di casser marché bi delloosi ko ne la marché bi kat njuumte li nga ci def lii la njuumte yooyu ma leen wax na nga xam ni am na ci biir loolu lépp à commencer par man le coordinateur de la cellule de passation des marchés nañu ko bu ma ko nangoo c'est parce que commune bi nangu na ko ci yéene la ñu doon dox wande yéenewu jalgati yéenewu mbuxum yéenewu leneen loolee dara dara dara dara amu ci li ci am mooy lii ma leen wax kaase nañu ko delloosil nañu ko te pour won leen yéene ju ñu am ci loolu que ni commune Touba bëgg na koo def te bàyyiwu ko na mu amee gàllankoor ci gestion wu daaw noonu la ñu bëgg rectifier ci ndiktal yooyu nga xam ne ARMP jox nañu ko te ñu nar a tënku ci contrôle DCMP marché yooyu ma leen énumérer yooyu yëpp dugalaat nañu ko ren ci suñu budget def nañu ko ci suñu avis général wu 2020 yónnee nañu ko DCMP ARMP jot na ci suñu PPM muy plan de passation de marché bi dugalaat nañu ko ci fas nañu yéene nañu amee yéene wu def ko daaw ñu def ko ren wande moytu te yooyu nga xam ne daloon nañu daaw ba wax dëgg yàlla li commune bi yéene a commencé par le maire le bureau municipal ak ñi mu collaborateur am yépp loola nga xam ne yitteel na commune Touba Mosquée yàlla defal ñu tawfeex ba marché yooyu mu jaar yoon ba nii ma leen ko waxee muy poste de santé yi ñu matale ko corbillard yi dëkk bi am ko moto pompe yi dëkk bi am ko wande feu rouge yooyu tamit dëkk bi am ko ndax Touba toll na fu nga xam ne wax dëgg yàlla loolu ville bu tol noonu yor li mu yor ci askan li fiy tourné ci transport mu tol noonu wax dëgg yàlla yittewoo nañu am wax dëgg yàlla taxawaay bu mel noonu